ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax te di leen ziar gannaaw bu ñu nuyoo ziar Cheikh Mouhamadou Mountakha di ñaan sunu borom mu dolli ko fa yàggal bu baax te dolli ko wér ba ay naalam lépp mu yeggale ko bu sumb leneen eh, te ñu ak moom di ko ñaanal bu baax Cheikh Serigne Cheikh Jëmm Fall mi nga xam ne tey mooy sunu buntu ci maam Cheikh Ibrahima Fall di ñaan sunu borom mu dolli ko fa yàggal bu baax te wéral ko. ba ay naalam lépp mu yeggale ko ba sumb leneen te ñu fekk lépp mbokk yi di leen ziar bu baax a baax nag di am mbégte ci dellusiwaat tey eh, ci di àllarba ji xam ngeen ni ñu ko diggee woon eh, ci eh, fi nga xamante ne bii dañ ci topp jaar-jaar ak lenn ci taarixu sëriñ bi te xam ngeen ne ay ndaw yu am solo di ko taxawu di ci sant bu baax a baax ak ziar sëñ Mountakha Ndiaye mi nga xam ne moo jiite liggéey bi di ñaan sunu borom mu defal ko ci ndam bu baax a baax tey nag ci àllarba ji ñu dellusiwaat sàkk woon ci ñun ñuy waxtaan ci li nga xamante ne bii. ñu sàkk woon ñu waxtaan ci li nga xamante ne bii mooy ndoge yi nga xamante ne bii mooy weeru koor wi nga xamante ne bii xam ngeen ne eh, ñu ngi koy waajal te eh, ku tedd kii di Serigne Touba Cheikhul Khadim moo ko santoon maam Cheikh Ibrahima Fall Babi Mouridina eh, loolu ci njaarim di nettali taarix bi na nga xamante ne bii noonu lañu ko mag ñi daa nettalee te ñu ci bari toxale ko ci maam Cheikh Ibrahima Fall toxale ko ci seeni wayjur muy loo xamante ne bii ndigal loolu. day gën di yees saa su nekk ci njabootug maam Cheikh Ibrahima Fall xam ngeen ne saa su nekk ñi di ko waajal fii ñu toll ñu ngi koy waajal incha allahu ay fan yu néew moo des ci sunu kanam ngir ñu tàbbi ci weeru màgg wu tedd woowu di weeru koor euh, xam ngeen ne euh, maam Cheikh Ibrahima Fall Babi Mouridina maa ngi nettali woon ci jotaay bi weesu ne mi ngi bàyyi ko euh, Thiès. ci atum 1915 am ñu ne 1916 taarix nag moo baaxoo wute moo tax it date yoo xamante ne bii rek joxe nañ ko luñ ca dégg mag ñu nettali ko rek dañuy daal di indi yëpp teg su ko defee kiy teew kiy teewlu nag am na ci ñoo xamante ne bii ndax sooy wax jàppal ne yaa ngi wax ak ñett ki la ëpp xam-xam fuuf ak ki nga ëpp xam-xam fuuf ak ki nga xam ne yéen a yom yéen a yam xam-xam. yéen tolloo xam-xam moo tax ñàkkul ci taarix yi ñuy nettali ci dat am na ñooñ xëy na seeni baay mbaa seeni maam nettali woon nañ leen xëy na loo xam ne suñ déggee lii danañ ci mën a ñoom tam def àtte loo xamante ne bii danañ ci mën a sukkandiku ngir ñu yokke ci e, sunu xam-xam mag ñi daal wax nañu nañu maam Cheikh Ibrahima Fall Babi diina mi ngi bàyyi ko Thiès. atum 1915 am ñu ne 1916 ci la ko Serigne Touba Cheikhul Khadim sant ngir mu ñëw njaarim bi mu dikkee nettali woon naa ci jotaay bi weesu ne mi ngi daloon kër maam Cheikh Anta gi jàkkaru kër yéeni manel bi fa sancee moo tax atum 1915 wala 1916 ci ñaari dat yooyu la ñu mag ñi wax nañu ci la ko Serigne Touba Cheikhul Khadim woolu mu ànd ak kenn ci mag ñi ñu koy wax Baye Yaram Mbay mi nga xam ne jege woon na ko lool lu bari lu maam Cheikh Ibrahima Fall daan dem fi sëriñ bi mu daan àndal bëkk néegam la woon bu nekkoon ak moom waaye tamit Cheikh Ibra bëggoon ko lool fonkoon ko daan ko def loolu yu bari wóoru lool nag kàddu yi bàyyi ko ci ku tedd ki sëriñ tubaa Cheikhul Khadim di rot fi Cheikh Ibra maam Cheikh Ibrahima Fall wóolu woon ci sëñ Yaaram Mbay ngir mu koy taataan la moo tax ci la ko sëriñ Touba Cheikhul Khadim woolu bi mu dikkee mu ànd sëñ yaram maam Cheikh Ibrahima Fall nag dafa baaxoo woon su masaana gi sëriñ bi dafay mel ne day xaw a ne ci àll loolu dal na ko ay yoon yoon yoon léegi daana toog fi kanamu sëriñ bi sëriñ bi wax loo xam ne dana ko yóbbu ci àll yoo xamante ne bii euh, léeg su noppee dina laaj sëñ yaaram bay na ko lu ku tedd ko wax lu ku tedd ko wax su ko maam Cheikh Ibrahima Fall di wax dafay fekk. bi sëriñ bi wax dafay mel ne Cheikh Ibra génn na jotaay bi su ma nee génn na jotaay bi mooy mi ngi feneen ndax cofeel ak xër gi am ci sëriñ bi tax na mënutoon a jëmmanteeg sëriñ bi mag ngi nag mas na noo wax ne mas nañ koo laaj Cheikh Ibra na leen a ah, doom sëñ bàmb suy wax lu yàlla bind lu yàlla bind day yëngu day riir danaa ah, doom dégg gi may dégg riir moomu nag moo waral duma mën a dégg waxi sëriñ bi waaye doom yéen ñi mënta joti ca loola moo waral ngeen dégg kàddu sëñ bi loolu mag ñee ma ko nettali moo tax léeg-léeg daana ànd ak sëñ yaaram mu ko daan taatanal kàddu yooyu di bàyyikoo ci sëriñ bi ndax am na ñaari yoon yoo xam ne danaa ko nettali benn bi bàyyi sëriñ faala ko woolu ku tedd dikkee ne ko demal wool ma Ibra Faal bi mu dikkee maam seex waajal na àddiye jox ko sëñ yaaram mbay na ko buñ àggee ci ku baax ki nga jox ko wax nañ ne bi maam Cheikh di xaar sëriñ bi ba sëriñ bi génn mel na Cheikh Ibra Fall daa daa génn jotaay bi ci misaal ni ma ko mën a nettalee ñii seetaante nañ xam ne ma jubloo wax mooy daa ne ci àll waaye ku tedd ki wax nañ ne sëñ Yaaram Mbay la waxal bi muy yëkkati àddi daf ko ne téye ko ne ko doyewuma ko loolu ne Ibra Fall ne ko doyewuma ko loolu daan na ko Yaaram Mbay mu ne ko Fall mu ne ko ne Ibra Fall mii ne ko san borom mii kenn te amul ku ko ñaareel laa ko bëgg kennaleel tey ba ñuy kenn yaaram mbay mu ne Fall mu ne ko neel Ibra Fall mii ne ko sans borom mii kenn te amul ku ko ñaareel laa ko bëgg kenn kennaleel tey ba ñuy kenn baamtu ko ñetti yoon bi sëñ bi fatoo ab diir Cheikh Fall na bërit na xeexee doom ah yaaram mu ne Fall mu ne ko ndax ku baax ki daa dem ba ñëw am day bëgg a ñëw <laughs> ndax ku baax ki daa ñëw ba dem am day bëgg a ñëw yaaram ndax ku baax ki daa ñëw ba dem am day bëgg a ñëw mu ne ko ah, ñëw na de mu ne ko lu wax mu ne ko nee na sans borom mii kenn te amul ko ko ñaareel la la bëgg a kenneel tey bi ngeen di kenn Seydou Fall na bërit na doom ah man a kenn ak neex na lool hee doom ah man a kenn ak sans borom neex na lool de sëñ yaaram neen loolu la Seydou Fall di wax ci làmmiñam baag këram <laughs> loolu am na yeneen i yoon yoo xam ne dal na maam Cheikh Ibrahima Fall baay bu di dina ci sëriñ bi yoon woowu nag mu ko woolu. ngir di ko jox ndigal ci weeru koor muy ndog yi daf ko ne Ibra Fall damay séentu gan te bëgg nga gàttandul ma ko te gungeel ma ko loolu moo waral ndog yii tey Baye Fall yi di togg ba maam Cheikh génne wax ak sëñ Yaram Mbay mu ne ko mu leeral ko li ku tedd ki wax mu ne ko sëñ Bàmba kat weeru koor la wax mooy gan gi waaye gunge bi mooy ay ndogu la may togguloo na nga gungeel ma ko te teralal ma ko la ko wax mu ne ko ay ndogu la may togguloo kon nag doom nañ ca jëm te waajal ko mooy nii ko bàyyi Faal yi waajale ndax xam nga fi ne nii kenn ku ne yaa ngi waajal say kumte moo xam ay xar moo xam ay ganaar moo xam ay nag moo xam addiya ngir waajal yuti ko kii sa buntu ci kër maam Cheikh Ibrahima Fall ngir mu togg ko ay ndogu jox ki fi nekk Serigne Touba Cheikhul Khadim Cheikh Ibra wax ne ndogu yi ma sëñ Bambay toggaloon kat doom ndogu yi ma sëñ Bambay toggaloo kat doom Cheikh Ibra nee na ku ma ci jox lu tool ni tànk tànk nag wax nañ ni 15 boo xaaj ay yoon la kon loolu <laughs> bëriwul ci saayir Cheikh Ibra Fall nee na ku ma ci jox lu toll ni tànk mu fàggul la ci lu dootut yàqu te boo faatu mu dugal àjjana Cheikh Ibra wax ne ndogu yii ma sëñ Bambay toggaloo kat doom. ku ma ci jox lu toll ni tànk Seex Ibra nee ma fàggul la ci lu dootul yàqu te boo faatu mu dugal na moo tax kon joxe ay ndogu maam Cheikh Ibrahima Fall Babi Mouridina la ko Serigne Touba sant lu jiitu loolu nag Cheikh Ibrahima mos ci denc da togg ay ndab muy dem ci ku tedd ki loolu it damay leeral ne maam Cheikh Ibrahima bi Babi diina bi mu nekkee Thiès Serigne Cheikh Ndiaye Mbeng doomi Cheikh Mour mus saafal nee na ma Cheikh Ibra daana togg ay ndab di ko teg ci saxaar gi ñuy wax rëgëriir mu daan bàyyi ko Thiès di jaar njaarim mu daan indi ndab yi ci ku tedd ki Seexul Xaddim loola maam Cheikh bàyyiwu ko ba bi mu ñëwee njaarim ni mu daan togge ndog yi weeru koor noo daan togge añ yi daan dem ci ku tedd ki Seexul Xaddim Serigne Touba ba boo demee njaarim am na ci kees goo xam ne danga fa gis waañ woo xam ne fa lañ daan toggee ndab yi daan dem ci ku tedd ki ku ëpp ci lim daan toggal maam Cheikh Ibrahima Fall du jigéen góor la bay Cheikh Tall Gallo tudd Cheikh moo daan toggal maam Cheikh Ibrahima Fall lu ëpp sax ci lim daan jëfandikoo moo daan togg la daan dem ci ku tedd ki Serigne Touba Cheikhul Khadim Cheikh Ibrahima Fall góor a ko daan toggal jigéen daw ko toggal. te loolu bari na ci njabootu sëriñ bi mën naa ci tudd ñu bari ñoo xam ne góoru leen daan toggal kon maam seex yàgg naa togg ay ndab di yóbbul sëriñ bi waaye weeru koor dafa am loo xam ne Cheikh Ibra Fall day ak jagleem ndax Cheikh Ibra mas na ma dégg mag wax ne Cheikh Ibra nee na weeru koor sax samay sañ-sañ da ciy dolliku weeru koor la samay sañ-sañ di ñëw maa am di dolliku loolu mi ngi xeewe bis boo xamante ni bii Cheikh Modou Moustapha Mbacké moo doon ñëw fi maam Cheikh Ibrahima Fall bàyyi Cheikh Modou Fatma Fall nee na dañoo toog ba mu yàgg maam seex na tëll gën ne hee hee doom na ngeen ma wutal ay warukaay yu baax ay warukaay ay daaba maanaam bu doon jamono ji ñu ne ay oto wala ay saret na ngeen ma wutal ay warukaay yu baax ngeen daw ca gaar ba tertul ma Cheikh Modou Moustapha Mbacke mi ngi ci saxaar di ñëw bàyyi Cheikh Modou ma nee na ñu takk suñuy fasinaaru góor nee na waajal nag defar fas yi bam ba ba yépp taxaw ba ket benn bu ne waaj waaj maam seex na tëll génn na xee xee doom lu ngeen nar ñu ne ko ah, Fall yaa wax ne ñu wut ay warukaay yu baax dem gàttandul la Cheikh Modou Moustapha Mbacke mi ngi ci saxaar di ñëw Cheikh Ibra Fall wax ne moo tax ngeen wut seen naaru góor yu suur yu rafet yii ngeen teg ci doomi sëñ Bàmba mu bajantu daanu waxuma loolu doom daan na gees na ana mujjum ngéen bàyyi mujjum ngéen na maa ngi nii Cheikh Ibrahima ana Daouda Ngom bàyyi Daouda Ngom na maa ngi nii mu ne ana sama karoot ba carotte am na ñu ko xam miin xam naa mooy li mel na genre voiture te mag ñi daa ci war ñu ñu ko daan xëcc di ko pousse comme voiture lay mel Cheikh Ibrahima Fall na ana sama karoot sax ñu ne ko ah, Fall karoot baa ngi mu ne nañ ko wat indi ñu wat carotte ba indi Cheikh Ibrahima Fall nañ ko takk ñaar ñii. ñu jël karoot ba takk ko bàyyi mujj jóom ngeen ak bàyyi daw dangom seerafal na dox leen ba nee ma gis ñu daal di dox mel nay fas kay seerafal na waaw leen góor doom bu ngeen demee na ci Modou saa Mbacke warta ngeen fekk sama fii keroog bi ñu egsee ci gaar bi bi ko sëñ Modou saa gisee daa daal di dar gi mi ne ah xanaa bàyyi Cheikh Ibrahima defati lii ñu ne waa ah, mun a moom da du soppi ko bu mukk ñu ne ko ah, nee na nga war ci te ñëw bi mu dikkee maam Cheikh wax ñu dalal ko ndax maam Cheikh Ibrahima Fall bala mu daan jàkkaarloog doomi sëriñ Touba su masaa saara nuyoo ci kër gi lii ma leen di nettali Serigne Bassirou Mbacke moom sëriñ Touba Seexul Xaddim mas lu mel nii mas naa ñëw fi maam Cheikh Ibrahima Fall ci njaarim mu xew mooy Cheikh Ibrahima bu masaan a gis doomi sëñ Touba suñ ko ne diw mooy nuyoo day wax mag ñi ñu dalal ko suñ ko dalalee façon berne bu nekk dana ko yónnee. ñu indi ko su su noppee maam Cheikh doora a waajal addiyaam ngir ñëw nuyu doomi Serigne Touba waaye Cheikh Ibra Fall musta jox doomi Serigne Touba loxo te du da cee boole addiya moom nuyoo murit daal Cheikh Ibra ko fi indi moom loolu laa jubla wax nuyoo murit Cheikh Ibra ko indi nuyu nuyu kilifa nu bàyyi ci daraam loxo maanaam loolu Cheikh Ibra ko fi indi waaw nuyu nuyu murit ak kilifa bàyyi dara ci loxoom. Cheikh Rafal ko fi indi moom mooy nuyoo murit maam Cheikh santaane ñu dalal sëñ Mourou Moustapha ñu dalal ko di ko berndeel ba ngoon jot Cheikh Rafal waajal addiyam daal di ñëw nuyoo na xee xee doom xam ngeen Mourou Moustapha Mbacke lu muy wut ñu ne ko déedéet nekkate Cheikh Rafal daana jël ci ay ay ay fanam moom sax ci ay atam di jox doomi sëñ Touba lu garaw lu doy waar cay Cheikh Ibra Fall daan ne fan wi dafa gàtt sëñ bamba bëgg ma yokkal ko ko te sëñ bamba xam na ne weeru koor la samay sañ-sañ di ñëw bàyyi seex mbay yaaram mi ngi dund boo ma ne sama nijaay seex mudu faat maa ma ko wax na ma seera faal ko ko fekke kenn nettaliwu ma maam seex ibrahima faal baay bi muri diina noonu la daan waajale doomi sëñ tubaa am na bis boo xam ne booba ku tedd ki dem na ndax bàyyi seex mudu nee na fekk na ñett yoon yoo xam ne sëñ Mourou saa ñëw na ko fi Cheikh Ibra nee bi ko njëkk tam fekkee ko ndànd la nee bi ko ñaareel mu fekk jotaay ba Cees la nee bu mujj bi njaareem la te boobu ku baax ci dem na bi sëñ mu saa ñëwee yoor yoor la ca la fa ñëw Cheikh Ibra waxtaan ak moom ba laaj ko ci ku tedd ki Seexul Xaddim Sëriñ Touba. Cheikh mu Moustapha am lu ko ca wax bam laaj ko lenn loo xam ne Serigne Touba battale na ko ko sëñ mu Moussa am lu mu ko wax waaye fa Cheikh Rafal tënk ak moom ci jotaay boobee la Cheikh Modou nee fekk na moom loola nee na daf ko ne sa bàyyi nee na lu wëttoon na jof si <laughs> lu wëttoon na jof si ndax da ko man mu ne ko waaw Cheikh Rafal ne ko waaw daañu la dimbali. daañ la dimbali mooy daañ la taxawu mhm. ba Cheikh Amadou saa demee Cheikh Mouhamadul Bachir fa la julee tàkkusaan de Cheikh Modou ma nee dañoo toog ba mu yàgg tàkkusaan sëñ Bachir nuyoo ñu wax ko maam Cheikh Ibrahima Fall mu ne ñu nañ ko dalal nee biñ ko dalalee. nee na di wa Cheikh Ibra Fall di waajal addi jum ko nuyoo tàkkusaan jot Cheikh Modou nee na sëñ Basiiru génn ndànk dem nee ma yëg ne génn na maa wax ko maam Cheikh Ibrahima Fall baaj bi muridina mu ne ma dabal ma ko Cheikh Cheikh Modou nee na ma dabi ko nee na bi mu dëppee Cheikh Ibrahima ne ko ah Mouhamadou Bachir loo bëggoon julli tee ñu laa defaral fee waajal la nga julli booba tàkkusaan daa jot Cheikh Modou nee na Cheikh Ibra Fall na ma xoolal ma gaal gee der ya ca nekk génn ca benn lalal ko Cheikh Mouhamadou Bachir nee na Cheikh Ibra ngi taxaw bi ma génnee ba yëkkati benn der maam Cheikh dafa xool der bi na sëñ Bachirou xam nga der bee mu ne ko déedéet mu ne ko koroog ba Cheikh Mouhamadou Moustapha Mbacke ñëwee jamono gàtt bañ ko tuddee der baa nga nee tegal Cheikh Modou nee ma teg nee na ma yëkkatiwaat beneen. mu xool ba mu yàgg na sëñ Basiru xam nga der bee mu ne ko déedéet mu ne ko koroog ba seex dal Fadel ñëwee jamono gàtt bañ ko tuddee der baa nga nee seex Moodu tegal bàyyi seex Moodu nee ma teg nee mu des benn ma yëkkati serafal na <laughs> waaw waaw góor doom lalal ko ko nee daan na sëñ Basiru sab dere ngi noonu lal ko te julli te ñaan loo bëgg loolu njaarim la seex Moodu Fatma nee na bi sëñ Basiru jullee ba noppi ba tàggatoog seex Ibra ba dem. nee na bi xëyee ci suba gi Cheikh Ba Fall ma woo na maa Modou Fatma ma ne Fall mu ne maa Mouhamadou Bassirou ah bëri na solo de maanaam ah, mu ne maa ah, bari na solo daan na ma basangu tàkku basangu romb jaan gi ma fekkoon démb ci tàkkusaan nga xam ne fi la jullee tàkkusaan basang gi ma fekkoon démb maanaam ah, mu ne Cheikh Ba Fall na ma ci laa fanaan bii doom ci laa fanaan de waaye Mouhamadou Bassirou ñëw na ci guddi gi wër na ma ñetti yoon te jaaru ci bunt bi loolu njaarim la xewe bàyyi Cheikh a ngi dund. yàlla na ko fi yàlla yàggal nee na ma sama nijaay Cheikh Modou Fatma ma ko wax na ma maa ko fekk ci njëriñ te bàyyi mu Modou nag ci daanaka ci juróom weeram jàpp juróom weer lañ ko laxas jox maam Cheikh Ibrahima Fall Baye Mouridina moom day daanaka léppam Cheikh Ibrahima Fall ko ko defal bàyyi Cheikh Modou Fatma nag ko am ndimbal la ci ay loxoom la maam Cheikh Ibrahima Fall wàcc liggéey maa ko wax. ci ay loxoom la Serigne Saliou Fall daaru xaxóor wàcc liggéey rakki Cheikh Ibra maa ko wax ci ay loxoom la sëñ Mourou Moustapha Fall wàcc liggéey kooko nettali lii moo tax kenn du Cheikh Ibra Fall baay bi muridina maam seex nag wéyal liggéey bu tedd boobu muy ndog yi yi ko Serigne Touba Cheikhul Khadim santoon di ko doxal ci njëriñ. tàmbali ko ak mag ñi di ko togg di ko yóbbul ku tedd ki Serigne Touba Seexul Xadiim mag ñi ne nañ fukki ndab ak ñaar la woon ca tàmbali ba daan ci booleb super boo xam ne dañ ko daan ber wutal ko waañu boppam ba tey super boobu buntu kër Cheikh Ibra Fall boo dem ci ñu koy togg super bi dañ koy ber waañ wi ñuy togg ndog yi ak wa ñuy ber super ba du bokk waaw ndax ki gën li gën lañ koy jox loolu la maam Cheikh Ibrahima Fall gëm waaye Cheikh Ibrahima nee dabe ndab mhm. daa am ku mas a ñëw fi moom ne ko ah man de Fall dama amut doole waaye bëgg na maa dab góor yàlla yi Cheikh Ibrahima na ko ah dab góor ñi nga bëgg mu ne ko waaw <laughs> doom ah maaseleel ma suuf si mu maase mu ne ko bindal dab mu bind deel bind baa Cheikh Ibrahima na ko bindal ndab mu bind deel bind baa Cheikh Ibra na ko ah doom demal dabe ndab mi ngoog dabe ndab Cheikh Ibra nee na ku bëgg a dab góor yàlla yi joxal jullit ñi ñu lekk ba suur buntu boobu rek a fi des Cheikh Ibra Fall ku bëgg dab góor yàlla yi joxal jullit yi ñu lekk ba suur ah waaye tey de boo xoolee day mel ne tey tey la tey daa mel ne tey a taxoon Cheikh Ibra wax tey jii nga xam ne kenn mënta génn. kenn mënta liggéey kenn mënta dem fenn ñi tëj nañ seeni place ca ndakaaru ñëw mbir yi fekk na leen fi mënatuñoo dellu ñii guddi lañ daan jaay moo xam lu ñu mën di jaay nag ci lu ñuy suturloo waaye guddi lañ daan faral di ubbi seeni place vingt heures ñépp tëju ngir yàlla képp kuy jëfal yàlla te li ngay def yàlla képp tax nga di ko def Cheikh Ibra Fall nee dabe ndab doom hmm, Cheikh Ibra ko wax nee na dabe ndab Cheikh Ibra Fall nee na ku bëgg a dab góor yàlla yi nee na jullit ñii doom day leen jox ñuy lekk ba suru fii jamono toll nga xam ne kenn mënta dem fenn ki nga dëkkal tam yitte woo lu mu dundee mu wóor na la yow saakub ceeb boo ko joxoon soxla na ko nga am ko jox ko te yàlla tax defal ko yàlla wutal saakub ceeb nga seet koo dendal wala koo dëkkal tàmbalee ko fi nga dëkk yow wóor na ma ne am nga koo jàkkaar lool te amul lum dunde am nga koo jàkkaar lool te tey jii kilo ceeb képp wala ñaari kilo ceeb boo ko joxoon tey wallaay lancim nga xam ne kii yittewoo na ko maam Cheikh nee na li leen yàlla jox bu ko joxul sëñ Bamba nee na day xeewi te bu xeewee koo ko jox du ko jël te jox sëñ Bamba mooy jox yàlla Cheikh ndax góor jàpp ci góor waaw Cheikh Ibrahima ne góor jàpp ci góor. góor jàpp ci góor góor jàpp ci yàlla Cheikh Ibra ko wax nee na góor jàpp ci góor góor jàpp ci góor góor jàpp ci yàlla maam Cheikh ne loo joxul sëñ Bamba dana xewi te bu xewi ko jox du ko jël Cheikh Ibra Fall nee wërsëg yii ngeen di dajale yii yi ne ci banque yi xam ne am na ñooñ xam ne ci alal lañ jébbalu maam Cheikh ne dañuy fanaane fanaane wàññi ba bët set am na ci ñooñ sax Cheikh Ibra Fall nee bu ñuy wàññi duñ sol mbubb dañuy defe ne buñ solee mbubb dañuy juum yaramu neen la ñuy def fanaane wàññi bët set maam seex nee na li ngeen denc ci banque yeeg coffre-fort yi Cheikh Ibra Fall nee na wër sëg nee na wër ay sëg la ay sëg mooy armeel Cheikh ba nee na buñ nee na maam Cheikh nee na boo faatoo say bokk wër la say jege ñaale ñu wax lu baax ci yow ba ñaanal la lañ lay bàyyee ca bàmmeel ba képp nga moom Cheikh Ibra Fall nee na la ñuy waaj a donn mat naa bàyyi xel kat Cheikh Ibra Fall ne lu ñu ci jëf ñu yónnee la ko li ngeen am tey ngeen ko ba bala ngeen fiy jóge waaye bàyyi fi nangam miliyaar liggéey bi sëñ Bam bi ne fi. gars amuñu luñ dunde ngay kof kofal di denc di jàll loolu wóorut de Cheikh Ibra Fall nee na loo joxul sëñ Bàmba dana xewi maam Cheikh ne bu xewee ku ko jox du ko jël moo tax fii jamono toll Baay Faal yi day koo ci fëgg tey mu ne la man kumte yu ma jox sama sëriñ la moom ci laa toog man fi ne moom laa moom laa ci laa ne ndax lan mooy lu jamono metti metti danañ yóbbu ndogu moom. lu jamono metti metti moo xam xaalis am moo xam xaalis bañ am moo xam jafe-jafe moo xam lu mën a doon waaye lu jamono tar tar lu metti metti mett ndox yu Cheikh Rafaal yii moom dana dem ci sëñ bi ren nag ni ko sëriñ bi santaane ngir nu yóbboo ko ni ku ne dégg na làmmiñu kàdduk sëriñ Cheikh Jëmm Fall xalifa maam Cheikh Ibrahima fal ci jamono yii te dana gën a yaatu mi ngi mi ngi tasaaroo ci mbooleem site internet yeeg télévi rajo yeeg fépp sëriñ bi wax ne ña daan dajaloo këram di ko togg si te mooy ñim yilif muy ak njabootam tàmbalee ko ci rakk yi ak doom yi ak seex yi kenn ku ne la nga daan ñëw di ko togg si ci biir kër gi mbooloo di daje na ko togg sa kër sëñ ja Jam wax loolu de nee na kenn ku ne mbane ya nga daan togg moo xam benn moo xam ñaar moo xam ñett te mu mm, nga daan ñëw ci biir këram ñu dajaloo ca waañu sëñ bi dañ ko fa togge at mu jot ñu ko daan defee noonu di ko boole di yanu di yóbbul sëriñ bi sëriñ bi nee na kenn ku nekk ci ñooñee nga xam ne dañoo yoroon cin ci biir kër gi na ko toggee sa kër sëñ Cheikh Jam wax loolu de boo ko toggee sa kër ba noppi nag teg ko ci oto boole ñu munte ñàkk ci ñu ko indi ñu indi ko bu dajaloo ci biir kër gi nag ñu daal di koy teg ci ay oto daal di tànn ab lim bu ko yóbbul sëriñ bi loolu la sëñ bi santaane ndax li xew te yëngal àdduna bépp te mooy feebar bii tey ñaan yàlla ci barkeb weeru koor wii barkeb ndogi Cheikh Rafal yii sans borom jeexal ko takk ci àdduna sépp léegi léegi léegi léegi sëriñ Cheikh Jëmmu Fall xalifa maam Cheikh Ibrahima Fall mu ngi waajal koor gi di waajal ndog yi waaye wàccaay wi nag kenn ku ne dégg nga ni ko sëriñ bi waxee sëriñ bi nee na. mbooloo ma daa daje ñépp di gis ne kër ga daa mel lii xew tax na sëriñ bi soppi na loola nam ko soppee mooy ñam ko daan teg ci seeni loxo ñu daan ànd ak seenu njaboot ñëw di ko togg ci ci biir kër gi kenn ku ci nekk la nga war a togg sëriñ bi dana la ko jox nga toggee ko sa kër boo ko toggee sa kër ba noppi nag nga daal di koy teg ci oto wala boo fekkee da dañ koy yanu moo xam ñaar moo xam kenn moom daal boo ko toggee ba nopp na ñëw ba ci kër sëriñ bi sëriñ bi ci boppam dajale ko te ko ci oto boole koog nombre bu munta ñàkk ngir ñu sedd la ko wala ngir ñu yóbbul ko kañ ko daan yóbbul loolu da la sëñ bi santaane loolu mooy tënk bi moom te it ni ko sëriñ Cheikh jëmm di defe te mooy Cheikh Ibra njortu naa ci bu wér ci ne ñi ma déggagul seeni kàddu it li ma njort te gëm ko te jàpp ko mooy duñ jóg sëriñ moom kenn ku ne nag man ngaa soppi ci sa biir kër soppi ngir na ko daan defee mu soppiku waaye ala kulli alin li sëñ bëgg dana am moom ndax ba sëñ Saliou Fat Sow maa ngi ñaan yàlla mu yàgg fi lool te wér moo ma waxoon na ma Baye Ibrahima moo moom wax fa njaareem te Baye Ibrahima Thiam nag Cheikh Ibrahima la ko yar ndax 1880 la feeñ jamono. 1890 bi mu amee fukki at laa ko bàyyam teg ci loxol maam Cheikh Ibrahima Fall 1930 nee na la masa tàqalikoo seex Ibrahima mooy bi mu wàcce liggéey sëñ Saliou Fat Saw moo ma ne Baye Ibrahima Thiam moo fa njaareem dama Cheikh Ibrahima Fall toog fii ne ne ne sëñ Bamba lu mu bëgg mën naa am kon li Cheikh Mouhamadul Mountakha bëgg mooy am faw day am te it Cheikh mun Mountakha li mu bëgg loolu la Serigne Cheikh Jëmm Fall di def. loolu la mboolem buntu kër maam Cheikh Ibrahima Fall di def ndax maam Cheikh Ibrahima Fall mission ci yoon wi mooy la sëriñ Cheikh bas moom Cheikh Abdoul Khadir nettaliwaat na ko keroog ba ñuy teg xeeru liggéeyu istaatu Mbàkke bi istaat ba woon te Cheikh Mouhamadou taxaw soppi ko daara ñu ngi ñaan sëriñ Cheikh bas mu yàgg fi lool te wér dégg naa mu wax loo xam ne loolee mën mii gis naa leetar boo xam ne kenn ci njabootu Cheikh Ibrahima Fall moo ma ko woon te leetar boobee sëñ Abdou Lahad moo ko yónnee woon ci kër maam Cheikh Ibrahima Fall mooy mbañum kër sëñ tubaab mooy war a joxe ndigal te joxewul ndigal mbañum kër Cheikh Ibrahima mooy war a jëfandikoo ndigal te jëfandikoo ndigal te mboolem ku yor sa bët di xool yor say nopp di dégg xam nga ne ñaari mbañ yooyu moom moom am loolu moom amut amu fi ndax ki war a joxe ndigal mu ngi joxe ndigal ki war a jëfandikoo ndigal. mu ngi jëfandikoo ndigal kon loolu moom jeex na sotti na mat na wallaay bàkki Cheikh Ibra Fall soññ na mboolem waxuma la murit képp de waaye kuy jullit Cheikh mun Mountakha soññ na la gis nga mun Mountakha Ndiaye dama dañoo nekk Europe maag sëñ Aline Badara yow am na ci foo daje nañ France mais kaddu Cheikh Mouhamadou Mountakha googu moo waxoon ne ba mu laal suuf daanaka man man man loola moo doon sama ngànnaay Europe li ma doon daj ci ay coonaak ñàkki nelaw ak ñàkk a dalloog yëpp wallaay lansim bañ mu laal suuf barki Cheikh Ibra Fall moo moo moo tax maanaam dama damaa xam ne diggante man ak manadi dañoo jege lool te Cheikh Ibra Fall nee na àdduna nanguwul gestu mag ñee ma ko wax de nee na looy jëf ci yàlla maam Cheikh nee na gëmmal rek roof sa loxo waaye boo gesoo taxaw ndax ku taxaw àdduna la taxawal bàyyi taal ndaw. bokk na ca mag ña ma daa wax Cheikh Ibra nee moo ma ne sama am seex nee ñett yi ku tarda ci yoonu ñetti yi ko tardeel ma ne ko baytaale ñett yooyu yan la baytaale na woon nee bul ko topp gënu la xoolal bu ko jox daf lay nax bu la tooñee fayul ku ko dégg doo dem moo tax buñ toppee ndigal a Cheikh Mor Muntaxa mi ngir lim ñu joxañ wallaay laasim danañ yegg kon yàlla na ko fi yàlla yàggal te yàggal fi ak njabootam sant nañ bu baax gërëm nañ bu baax mboolem ñi ñuy topp ci biir réew ma ak ci bitim réew yëpp nag eh, di la sant nag bu baax eh, sëñ mun Mountakha ndax lëg moom boo ko sànnee cëb lay defar nga affaire am <laughs> te fi ne kuy rëbb ku ne kuy fëgg lay mbokkam te sama am seex kat fi ne li ma fi indi saa su ne ma di la ko wax Cheikh Ibrahima Fall noo waxoon ne ku amul lu dul lenn képp def ko ci barab boo fa dégg yuuxu kenn waru la faa jiitu te ku te te ci Cheikh Ibrahima Fall nga nu woo wallaay lazim ne suñ la wusuwut góorewun ndax ñun luñ am Cheikh Ibra Fall nu ko defal kon noo ngi sant tey ñaan yàlla sunu borom doole la kattan ak wér ba li nga yéenee liggéey Cheikh mun Mountakha nga liggéey ko te am ci ngërëmal Cheikh Mouhamadou Mountakha ñoo ngi sant bu baax tey gërëm ñëpp incha allah xam naa ba beneen jotaay samedi incha allah ñu dellusiwaat ci yeneen nii waxtaan bu soobee sans borom.